di nuyu yéen ñëpp ci seen tour ak seen sant ah di jël nuyoo bi di ko tàmbalee ci le directeur monsieur Diouf directeur école TP1 maa ngi lay nuyu monsieur Diouf di la ziar di la remercier ndax lii yëpp yow la neex tamit ah bi ñu amee idée bi aussi biñ ci ñëwee waxtaan ak yow da nga ko rafetlu defe naa ne ànd ak man classe par classe. joxe information bi donc yow wan nga ne xeeboo ko euh, fonk nga bës bi li ñu la defal tamit fonk nga ko bala ma wax nag maa ngi nuyu sama borom kër muy monsieur Diop maa ngi nuyu di ko ziar ginnaaw bu ma sante samay waajur julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa salaam ah di wax ne rek Khady Diaw damaa buggoon nga jóg taxaw xadi xadi jógal ñu lay seen tàcc leen xadi donc on avance euh, maa ngi nuyu monsieur Niang monsieur Niang euh, président commission éducation ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu conseil municipal bi nga xam ne moo fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu. di ko tàmbalee ci sama sœur madame Yande Ndiaye nga xam ne conseil municipal la jugee ba ñàgg euh, monsieur Mandiaye Diémé ñu ngi lay nuyu aussi conseil municipal jugee ba ñàgg ñoo fekk si ñu. di nuyu madame Waly Sylla di conseil municipal bokk aussi ci commission éducation ñu leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci teewaay bi di nuyu sama chéri Yacine Diop maa ngi kontaan ci teewaay bi ah di nuyu mbooloo mi ci topp yëpp bëgguma lim maa ngi jël nuyoo bi yéen ñëpp di ko teg ci sama loxo sœur sama xarit sama mag sama lépp muy maman mu joxal ma ko jigéen ñi ci topp yëpp ah di wax ne rek damay taxaw nag ci sama sœur muy Khady Diaw Khady Traza xadi présidente xamaat sociale xadi mii nga xam ne tey ma sama xameel ak moom ndax euh, bi ma ko sama sœur présenté di sama xarit di assisar yàqul dara ci diggante bi dama leen di wax d'abord li indi fourniture scolaire yi lan moo ko indi fi damay wax ak xadi ne ko yow lan moo tax lépp li ngay def ci social yaa ngi ko yemale ñàkk ak Lac Rose bien vrai que social am ci Sénégal yëpp la ma ne ko ci waan pël sa loxo yegg seegu fa mu ne ma dinaa leen may fourniture scolaire loolu mo indi fourniture yi ñëw te école TP1. Euh, Tata Khadija xale yi Tata Khadija moo ñëw may leen fourniture scolaire yi ngeen gis nii yépp e, te boole woon ko nag ak sutura parce que xadi lii yëpp sax bëggu ko woon lii mm-hmm. daf ne woon ma damay ñëw ànd ak yow. classe muna ne ñu jël fa ben élève taxaw bureau directeur def remise bi mané ko dédé du demee noonu teraanga bët teraanga aduna bëtt té li nga té li nga ñu défal ndawul li nga ñu défal dafa reuy ndax lu yem ni fourniture scolaire nga munoon ko yemale sa dëkk munoon ko yemale ci sa njaboot munoon ko yemale ci sa bop nga jël ko jël sa alal ak alal ni mu saxé ci xol nga liggéey ko ko nga jël ko jënde ko ay fourniture scolaire ànd ceeg sa association muy xamaat social ak sa càmmeñ bu ñuy wax ëmm seen yéen ñaar yéenay ànd di def social fu ne ci Sénégal defe naa ne ñëpp teg nañ ci seen bët li xamaat social di liggéey ci Sénégal. barki Demba Ndiaye lañ yóbbu woon aide bu am doole fële ci Bakel nga xam ne fële inondation bi amoon ah Xadi mu ngi defal jigéen ñi consultation gratuite di leen defal suivi ci cancer du col de l'utérus diko diko def di ci tek suivi di len fajj ba ñu ndax barki de mu témoignage bi ci kanam ay ay ay dëkkandoom ci kanam waa ñàgg yépp lañ ko doon waxé té mom wax ko donc xadi bo jëlé sa alal ñew fekk ci fi directeur djouf indi ci sa alal sa teranga ju bare machallah nga né dama koy dimbalé TP1 bien vrai que man ma xamul parce que bimu né ma tanal école élémentaire bu la gëna jégé rek dama né ko TP1 bi ma nee TP1 ñëw ba ci biir laa leen deket école Tivaouane Peulh dafa nekk TP1 ak TP2 mais yooyu yëpp bu ma ko signalé woon dina ko defaat dina TP1 ak TP2 yëpp dinañ am donc Khady ñu ngi lay gërëm di sant di la wax ne waa Tivaouane Peulh naw nañ teraanga gi nga leen indil fonk nañ ko gërëm nañ la sant nañ la gërëm nañ sa frère ah di wax nag monsieur Diouf am ngeen partenaire dama ñëwoon keroog nga ni ma maay bàjjanu école bi léegi xadi mooy yaay école bi léegi man maay bàjjanu école bi xadi mooy yaay école bi sa njaboot a ngi nii bés ni ci tey boole leen ci njaboot gi teraanga yi ngay def boole nga leen ci donc sa njaboot a ngi nii yaay yaay école bi man nee nañ maay bàjjanu école bi jigéen ñi maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax defe naa ne su ma passé information diggante démb ak barki démb la vraiment yéen ñëpp ngeen wuyu si ma ñii di woote ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw donc kontaan naa ci yéen aw ma seen fay yal na leen yàlla fay ah di wax ne wax yombul nag surtout boo kontaanee ndax woote ñu wuyu si la rek dafa neex Sayer Thiam maa ne gay maa ngi kontaan ci yéen di kontaan ci taxawaay bi di kontaan ci engagement bi waaye duma fàtte sama frère Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye bien vrai que moom moo defar nii lépp bien vrai que dafay liggéey liggéeyam defar ak yéene maa ngi kontaan ci moom bu baax waaye nag di gërëm sama sœur nekku fi tey dafa dem ndax dafa am fuñ ko woo ci liggéey bi liggéey bi muy liggéeyal Lac TV muy Astou Sarr il faut ma taxaw ci moom nekku fi nag mais vraiment su ma xamantee ak Xadi yàlla ci moom la ko jaaral mu de mu nekk nag nit koo xam ne ku baax ku mu xam boole na maag moom mais bi ma boolee Xadi réccuuma ci dara tey ji xolam ak yéeneem yëpp mu ngi woon tey fekkee bés bii bi ñu ko wooyee man maa ko mujjee libéré ne ko demal euh, nga nga fekkee ji bés bee ndax lépp ci liggéey bi la boo nekkee fee rek ma nekk fii ndax lépp ci développement la donc xadi li ngay def lu baax di nga ne ma nañ def yëpp ci sutura ma ne la duma ko def parce que damaa bëgg nit kuy def lu baax damaa bëgg ñëpp xam ko damaa bëgg kii def lu baax di jël alalam di ko def ci doomu aadama yi damaa bëgg yéen ñëpp ngeen ràññale kan mooy xadi ba pare di financer groupement yi xadi jigéen ñaa ngi xadi jigen ñangi ngi jigen ñi yeena a ngi nii lu ngeen luma leen waxon neena leen won bu ñewé ba yaangi fi toog mbootaay fi leen yaangi ni xadi dama bëgg nga japp nak comme bëss ni ngay défé bëno ba diko défé kër mané mag Maguette yépp nga ñow fi fekk ci jigen ñi defal leen financement comme ni ngay défé defee bëgg na nga jappal leen bëss defal leen ko inshallah ah xamna fofu la yémalé sama cadeau di gëreum sama mère di sama càmmeñ monsieur le maire Papis Diop gërëm di ko sant di gërëm conseil municipal bi fi nekk yëpp encore di gërëm responsable yi di gërëm femme yi yéen aram may ga yéen ñëpp maa leen di gërëm di leen sant sama waa koñ yi yéen gërëm naa leen kontaan naa wax yombul bëgguma mënuma sax wax ndax kontaan mais daal xam leen ne kontaan naa ci yéen jërë ngeen jëf merci. di nuyu ginnaaw bi ñu sante yàlla jëpp si yónnante bi di sant sama ñaari waajur sant sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass maa ngi nuyu monsieur le directeur monsieur Diouf nuyu naa la bu baax nuyu monsieur Niang monsieur Diène Jéeme monsieur Jéeme maa ngi lay nuyu bu baax xam naa ah, xam naa ko joolaa la sama jaam la maa ngi nuyu monsieur Ndiaye monsieur Silla monsieur ñaari monsieur Silla moo fi am lay nuyu bu baax di sant di nuyu sama chéri monsieur Diop pap ah, gis na ni nga téye Amina ma ngi nuyu imam di nuyu chef de quartier parce que ñew ci dëkk da ngay nuyu borom dëkk ba ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu jigeen ñi fi tok ñep di nuyu monsieur le maire parce que mom moy maire pol Peul da commune Tivaouane Peul ñàgg maa ngi koy nuyu ak conseil yëpp yu fi nek euh ah, jour bi nak te dama ko defal xale yi mais dama ko defal sam bopp parce que jigéen bu ne yaay nga di si sant Amina parce que Amina comme ni mu ko waxee daf ma woo ne ma ñun si lañ bokk de ñun waa Tivaouane Pël si lañ bokk ma ne Amina di ngeen am bindal ma liste nag ma ne ko Amina si liste école yu bëri na de bu muy jël benn nañ tànn benn parce que lii yëpp programme bi am nañ programme bi nañ parce que commerce social ma di leen fàttali ne benn association mo formé la ak ëmma seen chaque année dañuy programme comme ni li ñu war def dëgg buñ ko fekkee jàmm programme nañ ko ba pare ma ne ko amina dañoo programme ba pare dinaa la sax xajal waaye liste école yi ma jox tuwaawum pël yëpp mënuñ leen fournir tànnal ma benn rek mënoo kon andil ma ko école tuwaawum pël 1 te ñaan ñi ngi ñaan bu ëllëgee ñu andiwaat yeneen école ak yeneen école yeneen école te amina mii mooy tax parce que daa doon nit ku baax bi ma ko xamee ba léegi ak star boole maam moom mooy sama kol euh, ñàpp nga xam ne lakkal ma ak Sassar mais muy sama xarit bu baax moo ma booleeg Amina Dramé mais ñu bokk Saalum parce que Amina yow waa Saalum merewul la waa Saalum ñu gisee li ngay def Tivaouane Peulh duñu am gàcce man sama fierté nga parce que fu ma ñëw Tivaouane Peulh buñu ne ma Saalum Saalum li muy def lu baax man damay kontaan yal na la yàlla fay may wax waa Tivaouane Peulh yëpp di leen wax ne bu ngeen ma ñaanal bu ngeen ma sant sant leen Amina ñaanal leen ko te jàppal leen Amina inshallah man at amina ko la baye nañ te dinañ jàppale jigéen Tivaouane Peulh dinañ jàppale école ci Peulh ko amina mo tax lepp lo xam tama social def nako ci Tivaouane ko amina mii moy tax parce que signé nañ signé nañ ben accord te lepp lu nekk ma nga sa ma koy sant di ko gërëm sama sœur la sama rakk la nit ku baax la te nit ku baax da ngay andal nit ku baax te xamna bëggal na ci Tivaouane ko lu baax motax ma ñoo fekk si ko fii defal lii élève di wax jigen da leen wax ne lu tax ñu ñu doon euh, financé jigéen ñi bi ñu toogee wax dañ na xale buñ bañee mu taxawaal rek dimbaleel yaay bi parce que yaay mooy nekk si kër mooy yar xale di leen ñaan ngeen wàññi tiktok bi yaa wàññi youtube yi di surveiller xale yi jigéen boo gis li nekk si tiktok yëpp xam na ko mais deux bar doom yi xamul jël leen seen jël leen xale boo si jox benn son musical dinañ la ko répété ba mu jeex te boo ko joxee leçon du ko répété loolu dama naan ñun yaay si lañ bokk xalé dang koy surveiller xalé du dang koy jox téléphone toujours bañ mu sonal la ba jox ko téléphone bi dem na ko dugal ci youtube ba duggal euh, facebook li nek ci facebook li nek ci youtube tiktok mu ngi yak xalé yi te mu ngi ram li na li ram ci ñak bu la jëm surveiller len xalé yi surveiller len jangu xalé yi li ñu def na xex nañ ko monsieur Diouf ma ngi lay gërëm di la sante yow sama nijaay nga xaw sama mam parce que sama mam Diouf la sante dami may ñew tiawon pol ñag dafa ne ma dëkku pol ñi nga dem ak jolaay lu la neex defal parce que yaay seen buur séeréer mooy buuru pël mooy buuru joolaa yow nga yaay seen buur te daf may wax ne ma aada aada bu ñu neexee ñu foyee ko mais cosaan bu ko kenn foyee diggante séeréer joolaa ak pël cosaan la nañu ko fonk maa ngi lay wax ne élèves yi ñu ngi fii ñun maa ngi seen kanam tamat social sa kanam di la wax ne élèves yi bés ñi tey yow yaa nekk directeur école élèves yi chaque classe les deux premières yi nga xam ne ñoo nekk si classe bi commerce social dinañ leen jël en sargi déwén seen ouverture ak seen fourniture waa commerce social moo ko jël yéen xale yi kon nag jàng na CI ba CI ba CM2 xale bu ñaari xale yi nga xam na ñoo jël premier commerce sociale mooy jël seen inspection l'année prochaine te moo leen defal seen fourniture te bëgg nañ ñëwaat indi yeneen fourniture mais loolu moom c'est sûr yee am Amina ne gis naa mu may sànni ay points si ginnaaw di ma wax si jigéen ñi dañoo wax dama féministe de trop ma ne waaw parce que jigéen mooy réew parce que jigéen bu baaxul réew ma du baax quand même dañuy suufal tuuti des fois ñu xaw ñu desal ginnaaw mooy ne toujours devant maa ngi lay wax ne dinaa ñëw seet si leen dinañ dem di ngeen si financement yi rien que pour waxuma ngeen koy toog a seen ay ginaar mais ngeen di jël éducation xale yi ngeen toppatoo xale asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu suma jiw merci.